askan wi nag di leen tëj ci kaso bi moom président Macky Sall beneenub yëglekaay bu dellu suwaat ci ay kàddoom mu di yëglekaay bi di enquête message fin d'année bu mu amal yéenekaay bi ne discours bu doy waar moom la Macky Sall yëkkati daal di ñaawlu lu jëm ci wàllu extrémisme populisme ak it lu jëm ci wàllu manipulation ma ngay woote nag ci fair play jamono joojee nag ñi farek Ousmane Sonko di ñaawlu nag régime dictateur bi nga xam ne rek moom la ñu am jamono ji fii ci réew Sénégal di salfaañi ak ak yelleefu doomu aadama ci réewu Sénégal naam joxewul ab date Khalifa sàll jamono joojee nag di xamle jéego yees yi nga xam ne rek nam mën a koo doxal Macky sàll muy dellu siwaat ci ay trophéem loolee nag la yëglekaay bi di Sud Quotidien daal di xëy fësal ci xëtam bu njëkk ci ab discours bu mu doon jagleel askanu Sénégal fanweeri fan ak benn ci weeru décembre gouvernance démocratique l'état de droit ak bon gouvernance loole lépp nag mu xam ne ni def na ci ay jéego yu bëree bëri moom njiitu réew mi ma ngay woo candidat à la présidentielle yu atum 2024 yi nag ngir ñu daal di doxal li ñu mel nag sérénité ak fair play fii ci réew Sénégal des ba tey ci discours bu mujj bi nga xam ne rek moom président Macky Sall amal Le Soleil yëglekaay dellu soit ci ab bilan ak yëngu-yëngoom mu doon amal nag mu ne Sénégal jiital na ko nag ci dëkk yi nga xam ne moo gën a émergent yëglekaay bi di xam ne ne moom président Macky Sall ma ngay xam ne nag ni dina fexe ba amal élection yu leer te ànd ak kaaraange naam du ci bokk nag te bu ci noppee nag dina fexe ba amal ab fondation boo xam ne dafay dox ci wàllu jàmm dialogue ak développement président Macky Sall ubbi ab xolam di wax nag jëmale ci askanu Sénégal loolee la yëglekaay bi di Le Quotidien daal di xamle ma ngay dellu si nag ci li nga xam ne jot na koo liggéey fukki ak ñaar yi mu jiite bopp réew Sénégal di xamle itam na nag élection yu baax te ànd ak karange te leer nañ ñi daañu ko amal ci réew Sénégal bu ca noppee daal di taxawal ab fondation bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi ci las yëglekaay Macky Sall muy tàggatoog askanu Sénégal moom la xëy daal di fësal ci xëtam bu njëkk ci ab discours bu mu doon amal nag jëm ci at mu yees mi ngi sóobu yéene kaay bi ne Macky Sall kay amal na ay tàggatoo yu doy waar les échos daal di dellu siwaat nag ci taxawaay bi mu na ma am mu ne bis bu jébbalee lenge yi nag ki koy wuutu ci bopp Sénégal Macky Sall di xamle ni Sénégal moo ne ci dereetam nag te itam nag moom la bëgg ci xolam fondation bi mu fas yéenee taxawal nag ci wàllu jàmm la fas yéenee doxal nag ak lu jëm ci wàllu dialogue ak développement ci dendu Afrique naka noonu ci àdduna wërngal këpp bés bi le jour nag daal xam xamle ne ay kàddu dëgg nag moom la yëkkati moom président Macky Sall ci ba muy tàggatoo nag di jaajëfal askanu Sénégal naan leen nit matul yëglekaay keneen koo xam ne amal na ab discours mu di Karim sa Wade di lancer ab campagne am nag ginnaaw bi muy xam ne nag ni jamono ji mi ngi ci njeextali exilam nag moom Karim sa wadd nag ma ngay fësal programme bi nga xam ne rek na mën a koo doxal mu ne candidat bu unité ak réconciliation moom la fas yéenee doon Walf Quotidien taxaw seetlu ci investiture Ousmane Sonko yëglekaay bi ne waa Pastef moom du ñu sonn du ñu tàyyi ci taxawaay bi ñu am ngir investir kii di Ousmane Sonko libération dellu soit ci jamono joojee nag ci ab sénégalais bu am ñaar fukki at ak juróom bu ñu faat ci Atlanta waa ji nag di wuyoo ci turu jiin ñaa ab bal la ñu ko tiiree ginnaaw bi mu yegsee ca États-Unis jaaree ko ca Nicaragua moom nag ñu ngi ko faat ci mbeddu États-Unis ginnaaw bi mu àndeek ay sénégalais yu bëri nag doon wutub liggéey ca lañ ko daal di tiire bal mu daal di faatu tàggat yaram la ñuy àddu jëmale ak sunu làmb dikk ne Modou Lo na Boy Niang juróom-ñaari minute la ñu am nag couronne bi daal di des ba tey Parcelles Assainies yëglekaay bi dellu siwaat ci combat bek na mu demee démb la ñu ko doon amal benn fan ci weeru janvier ca